Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Instant Droit. Cette fois, euh, on va parler de l'acte de mariage. Pour répondre à nos questions, on a comme invité Maître Aliou Badrafa. Maître, bonsoir. Bonsoir, Madame Sagna. Euh, à ses côtés également, on a Imam Moussa Fall. Bonsoir, Imam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, je, vous propose de regarder ce reportage et revient tout de suite sur le plateau. dafa war a am këyit quoi indépendamment du fait que xëy na on est dans une dans un pays boo xam ni on est une majorité de musulmans souvent dañuy tàmm see jàkka ja yem si mais certificat de mariage lu am solo parce que euh, nit soo marié ba nga am papier de mariage bi ñu lay jox si jàkka ji da nga war a dem mairie nga wut certificat de mariage parce que au cas euh, di nga bëgg nekk fenn déjà dañ la koy laaj. loolu moom dëgg la dañ ko sàggi na trop trop. man mii di wax ak yow mosoon naa am mariage mais ma ko sàggi na woon mais tey tey moom su ma seeyaatee nii nii nii nii tey tey 5 heures waa mairie defee euh, bu waa jàkk yi dafay seen këyit su may xëy di dem mairie parce que góor ñi léegi dañu xaw a bañ affaire mairie ci loo am solo la parce que euh, comme ni ma ko waxee on est dans un pays musulman à majorité musulmane mais on est quand par des par un droit des droits qui sont là am na yoo xam ni bu fekkee ni amoo certificat de mariage su ëllëgee amee wala dara am mun na la indil ay jafe-jafe. ba pare aussi tamit am na si cas yoo xam te ne tey imaginer nga nekk tey première femme nga sàggane ba amoo papier de mariage léegi tey deuxième femme bi tey ñëw léegi moom mu am papier de mariage léegi tey ji yow soo yoree say doom est-ce que foofu noonu di nga fa am ay papier quoi day indi ay complications mais pour nga def ko daal man moo ma gënal. xaw ma nag lan moo leen ci tax lan moo leen ko bëgg a mais dañ ko bëgguñu ko. mais ñun jigéen ñi ku ci sëy taxawoo ci ut papier de mariage mairie parce que mooy suñu avantage ëllëg kenn ñaanul yàlla di say de am divorce mais danga koy sóoraale ba ëllëg problème bu naree am nga taxaw mu taxaw waaw parce que àdduna moom da ngay am euh, njortu mu rafet rek mais lu ne mën naa am. suñu réew yi awma lu ma si wóoroo Sénégal mais mais en France je sais que mariage civil bi moo war a jiitu mariage religieux bi waaw loolu moom loolu am na. mais fii Sénégal aw ma dara aw ma si benn firnde quoi. n'empêche que mariage bi su fekkee ni jàkka ja da nga yem c'est quand même un mariage valable mais am na am na si ay kayit yoo xam ne bés boo koy lijjanti pour nga yegg fa il faut nga am mariage euh, bi ñu enregistré au niveau de la mairie avec des témoins. Nous sommes de retour euh, sur le plateau de Instant Droit. Voilà, nous venons de suivre le reportage qui sera suivi d'une première question. Euh, je commence d'abord par euh, Maître euh, Ali Badrafal. Maître, à quoi sert l'acte de mariage et quelle est son utilité je vous remercie, Madame Sanya. Effectivement, acte de mariage dafa am solo am na utilité parce que acte de mariage d'abord mooy acte bi nga xam ne ni officier d'état civil moo koy. moo koy établir pour constater un mariage entre deux personnes son utilité mooy ça vous permet quand même ngeen faire valoir les intérêts de votre mariage devant l'État et devant la collectivité publique parce que su fekkee amoo leen acte de mariage amul fenn foo leen mën a taxaw nii mën marié ngeen te amoo leen acte de mariage bu fekkee une personne mu nekk un un euh, travailleur un fonctionnaire bi nga xam ni dafa nekk dans dans la fonction publique buñ ko il faut obligatoirement produire l'acte de mariage pour que au moins ñu mën prendre en compte sur le plan fiscal quand même ces impôts et autres là donc bu fekkee ne amoo ak de mariage yooyu yëpp pratiquement doo ko mën am te amul fenn fooy mën a taxaw ba ni nit ñi man je me suis marié avec quelqu'un tant que génne woo de mariage là muy le certificat de mariage c'est ça son utilité pratiquement. ok bon maître nag boo ñu ko waxee tam si olof xam naa dina jëriñ euh, yenn téléspectateurs yi nga xam ne dégguñu français d'accord li ma li ma doon wax mooy acte de mariage mooy benn document la bu euh, officier d'état civil di établir euh, ñaari nit bu nu marié obligatoirement le lendemain war nan ba ba ba am six mois war nan mën a dem seeti officier d'état civil pour mu defal leen benn acte bu ñu tuddee acte de mariage moom la woowee certificat de mariage maintenant certificat de mariage boobu noonu moo leen di permettre que le mariage soit opposable ah à l'État et soit opposable également aux collectivités publiques bu fekkee ni ñoom amuñu certificat de mariage daanaka day mel ni seen mariage existé na existé na c'est valable mais sur le plan juridique ce mariage n'existe pas donc on ne le reconnaît pas quand même sur le plan juridique l'existence de ces mariages là donc mariage boobu moo leen di permettre aujourd'hui tey bu fekkee ni ñoom bëgg nañ euh, faire valoir leur mariage au côté de l'État ou bien euh, à la collectivité publique également que ñu génnee seen acte de mariage boobu pour simplement que état wala collectivité locale au moins wala collectivité publique reconnaître ce mariage là. voilà maître merci beaucoup hein. Et est-ce qu'il est possible d'obtenir un acte de mariage à chaque fois que besoin se fera sentir. oui effectivement. maanaam saa boo ko soxlaa mun nga am euh, accès bi facile pour nga am acte de mariage bi. non bien sûr bien sûr puisque euh, il est permis quand même aux aux aux personnes mariées. au lendemain de leur mariage, d'aller voir l'officier d'état civil pour l'établissement de cet acte de mariage. le lendemain. le lendemain. ok le lendemain même. mën ngeen ko mën nañ ko dem defi. mën na mën nañ ko dem defi le lendemain. maintenant des personnes restent souvent plus de six mois plus de six mois pour ne pas établir cet acte de mariage là pour ne pas aller voir l'officier d'état civil pour qu'il établisse cet acte de mariage là si c'est le cas effectivement. obligatoirement, ils devront saisir, au-delà des six mois la ils devront saisir le juge, le tribunal d'instance, le tribunal d'instance du ressort. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on appelle C'est ce la, déclaration tardive de mariage. Maintenant, bu six mois yi passé te ñoom au moins demuñu am ci officier d'état civil pour ut acte de mariage ci six mois yi passé obligatoirement dañuy dem ñu gis juge bi yóbbu ay kayit ak seen témoin pour juge bi may leen acte boobu noonu acte de mariage bi. xam naa dinañ dikkaat euh, si question boobu et ma dikk nag si euh, imam imam euh, ñoo ngi lay mm-hmm. nuyu. di gërëm di la sant. man na première question bu may laaj mooy te dañ ma koy laaj sax man. Mm-hmm, mm-hmm. dama dégg ne am na ñoom bu ñu defee mariage religieux si kër le plus souvent ils ont des difficultés pour am certificat de mariage constaté c'est comme ça on dit voilà. si jàkka ji dañuy am ah. problème quoi. d' accord waaw question bu am solo parce que day faral di am ci kër yi euh, te takk sax daanaka kër lañ ko bëgg kër lañ gën a euh, bëgg ñu defee ko fa en fait Sénégal bëgg nañu jàkk baax na nag ndax mooy dajale nit ñi mais bu ko defee ci kër ba pare fexeel ba imam bi nekk ci gox bi nga yëgal ko ko euh, maintenant defe naa jumaa yëpp ñu ngi disposer li ñuy tuddee benn carnet de mariage boo xam ne ñoom dañ koy remplir. boo xam ne boobu ça fait office de ce document ci trois mois yu njëkk wala six mois yu njëkk moom nga yóbbu mairie donc boo fexee ba booy maye sa doom nga yeggal ko imaamu gox bi mu indi euh, document boobu ñu remplir ko sur place da nga koy garder mooy solution bi mais bu ngeen mayee euh, te yëgu ko mën ngeen ko itam seetiwaat wala ngeen seeti waa jàkka ji neneen kat dafa am takk bu ñu bett ñu bëggoon nag ngeen dugal données yi ndax dina am ay CD ak seen numéro carte d'identité ak seen loolu nga yóbbuwaat mairie dans les six mois pour am euh, certificat boobu nga xamante ne moom la moom la état reconnaître donc solution lañ leen di jox moo gën nag toog ba loolu weesu nag nga war a jóge ci dima niveau boobu demaat ci beneen niveau war a dem ci juge bi mu jural la nag ay jafe-jafe su boobaa dañuy dellu siwaat encore ci imam xamal ko ne ko mariage amoon na fi comme nag tôt ou tard ngay saisir imam vaut mieux nga tel ko saisir. nga jiital ko waaw ko moo gën. mais bu dee ci biir kër parce que moom boo ko déplacé dina ñëw indaale document boobu su ko defee eh, na gars yi kaste ñu ngi kaste naan ñoom vraiment parfois da leen di mais bu ñu ko defee si kër imam bi da leen di traîner loo ba finalement ils bi mun leen jox euh, certificat de de de mariage ak constaté boobu waaw imam yi nag dañ ci am tuuti prudence aussi parce que dina gis jigéen buy nekk ci xeex nekk ci combat ak comme ko seqaloon bëgg papier bu koy prouver léeg-léeg itam nga gis mariage bu ñu arrangé pour wut papier visa ak yu mel noonu te su boobaa imam bi responsabilité am digganteem ak boromam lay set moo tax muy laajte moo tax muy leerlu donc même bu doon mariage normal sax li l'imam dafa war a leerlu balaa muy may sey loolu tamit ay points yu am solo la. waa imam est-ce que ay jullit ah mun na bëgg a sëy tëb mosquée bi dem directement mairie. est-ce que l'islam nangu na ko. waaw bu dee sëy dafa am charte. si ñaari jullit. waaw ah, bu dee sëy en tant que musulman dañuy inspiré wu ci dund yonent bi alayhi salaam moom dund na am ay soxna ba pare sa vie est un modèle pour tous les musulmans ba tax na moom soxna lim ci wax borom xam-xam yi tëral ko mooy dafay am kilifa. su dee rawatina ci ngiru Malik su ma nee ngiru Malik nag mooy ngir bi nga xamante ne li ëpp Sénégal ci moom la ñu tënku am na ñu tënkuwul ci moom mais ñu tënku ci moom dañu ne il faut mu am accord entre ñaar ñu bëgg sëy ku góor kee ku jigéen ki duñ ko forcer benn euh, wala accord bu jógee ci seeni kilifa ndax jigéen ki koy yar baayam wala ka mu nekk ci keppaaram mooy kilifaam mooy tuteuram bu dee góor itam kilifaam lay yóbbu lay yónni moo xam magam la moo xam nijaam la moo xam baayam la moo tax imaam malik naan laa nikaaxa illa bi waliyin bi sadaqin wa waliyin wa shahiday adlin ñetti point foog mu am mooy can can li ko indi ci islaam mooy bu njëkkaan dañ daan forcer jigéen ci say léegi nag boo ko bëggee foog nga génnee sa alal boo ñàkk teg ko ci loxoom benn point la beneen point bi mooy day am seede seede au moins deux ci ku góor ki deux ci côté ku jigéen ki beneen bi day am accord entre kilifa yi kilifa yi d'accord ne ñun kat nangu nañu mooy siira bi may ñaan naa la may naa la ki ñaan day habilité habilité ñaan ki maye war mën a maye. lu ma comprendre daal mooy si l'islam nanguwuñu nga tëpp euh, mosquée bi euh, daal di jubali direct à l' état civil. ne da ngay marié lislaam nag moo ko si ay jullit laa. mun nga dem ci beneen ngir. Mhm. Euh, mu ne la ku góor ki ak ku jigéen ki bu ñu d'accord ne ne bëgg nañu sëy ku góor ki génnee can jox ku jigéen ki sëy bi mun na tabbi parce que par exemple boo demee ci chiite yi dañu koy def c'est un c'est le mariage temporaire donc bu fekkee da ngay tontu an pour islam de manière générale mun nga ne am nañu ko nangu. mais su dee dañuy spécifier Sénégal ci côté ngiru Malick bi ñu yaakaar nga xam ne fa la ñu tënku ñun ñëpp suñu mag ñeeg ñëpp dañuy naan ah mariage kat dafay am fi muy jaar li ñu bañ ma mu nekk takku suuf parce que ëllëg si biir njaboot mën na ci feeñ ëllëg si biir ki takkoon mën na amaat feneen beneen famille dee jot ñëpp ñëw bugg donn problème daal di am islam nag mu ngi sóoraale désordre boobu bañ a am moo tax. dëgg la kay kon euh, waa foog naa ne tontu bi bu ñu imaam Mamadou Fall jox leer na nañ alors euh, maître Comment obtenir un acte de mariage et que vous êtes de nationalité euh, je pense que euh, ça, le texte est clair. Hein? Maintenant, si on lit les dispositions de l'article 44 euh, du Code de la famille, effectivement, si deux personnes sont sénégalaises, sont de nationalité sénégalaise, en France ou bien et résident euh, à l'étranger, ils peuvent quand même célébrer leur au niveau de, de, de, de, de la France ou bien au niveau de l'étranger, mais que ce mariage-là soit célébré conformément aux lois sénégalaises. Conformément aux lois sénégalaises. Ils peuvent même, après avoir célébré ce mariage-là, se rendre au consul, au consul euh, Séné du Sénégal qui se trouve dans ce pays-là pour faire constater ce mariage-là. Maintenant, s'ils constatent ce mariage-là et qu'ils veulent maintenant transcrire leur mariage au niveau du Sénégal, ils peuvent valablement, effectivement, se marier en France. S'ils sont des Sénégalais, ils peuvent se marier en France. Maintenant, à charge euh, pour eux de se rendre peut-être au consul pour faire constater ce mariage-là. Maintenant, s'ils constatent ce mariage, le, le, le, le consul obligatoirement devra transmettre Cet acte de mariage-là au ministère des Affaires étrangères qui devra remettre à, à l'officier d'état civil pour la transcription de, cette, de cet acte de mariage. De, dès l'instant que, que, ça a été transcrit, dès l'instant c'est automatique, vous demandez à l'officier d'état civil, ils peuvent quand même, dans, le, texte ne le permet pas. Parce qu'un mariage, effectivement, il faut toujours, il faut, ça dépend. Si euh, c'est une déclaration tardive de mariage devant le juge, si c'est une déclaration tarde de mariage souvent le texte exige deux témoins deux témoins maintenant s'il s'agit d'un mariage qui doit être célébré devant l'officier d'état civil devant l'officier d'état civil il y a quatre témoins deux pour chaque époux deux témoins pour chaque époux pour chaque époux devra faire comparaître d'un témoin pour obtenir quand même cette de mariage toute personne qui a assisté au mariage pourra quand même témoigner de ce mariage là toute personne qui a assisté euh, à ce mariage. Non, no non, non, non, non, non, non, non. Lui, c'est un, mineur. Tous les majeurs qui sont capables, tous les majeurs quand même qui ont assisté au mariage, effectivement, peuvent témoigner de ce mariage-là. Il y a une solution, bien sûr. Parce que souvent, fin attaqué mariage, fi fin, mariage, fin attaqué, officier d'état civil bobu moo compétent pour jox le certificat de mariage. Euh, bon, xamna comme Sénégal moom dafa am nu ñu bindo. dañoo dañ fi nekk ci wàllu aada moom yàgg diine ñëw tom rek nag tubaab bi coloniser ñu dem eh, léeg-léeg ci dangay gis suñu comportement dañuy xaw a nuru nitu aada aada day am doole ci suñu acte eh, diine léeg-léeg mu ñëw jël place am waaye léeg-léeg ñu puus ko moom itam mu puus aada fële léeg-léeg ñu puus diine léeg-léeg eh, wàllu tubaab ñëw am doole moo tax moo tax jotaay bi mel ni dangay gis mélange bi entre ni ko jàkka ji defee ak ni ko par exemple juri euh, côté juridique nañ koy defee léegi nag normalement mariage bu amee le message est adressé aux deux intéressés maanaam ku góor ki ak ku jigéen ki parce que imam am na xutba bu muy jàng xutba bi d'habitude les gens le font en arabe déjà or l'arabe c'est langue la boo xamante ne ci la ñu jotee diine certes mais contenu message arab bi dañ ko war a euh, indi ci langue bi ñu dégg li nag mooy imam bi mu firi ko mu firi contenu message bi pour wax la importance su mariage ñu euh, ngi koy firi nag bu dee jamono bi mu koy firi ku jigéen kaa ngi ci salon bi di defaru ku góor kaa ngi ca këram di xaar message bi kan la ko adressé problème baa ngi noonu donc kii wax ndax ñam war a waxal la waxal ndax la mu war a wax la wax loolu jar naa seet donc ce qui veut dire que il faut que ñuy soppi tuuti man li may faral di wax ci mariage yi mooy séquence yi nañ ko filmer au moins ñu denc ko mu nekk loo xam ne dañ koy immortaliser ëllëg ngeen tegal ko ñaar ñi ma concerné l'intervention de l'imam ci àqu sëy ci lu war ko góor ki ak lu war ko jigéen ki ci sëy ni ko charia tëralee te lépp sécurité sëy la itam imam daf ko war a leeral wax li ñu war a moytu ak fi ñu war a teg seen tànk ëllëg ñoom bu ñu toogee toog di ko seetaan defar na sëy yu bari nag parce que toog nañ ba mu yàgg ñu xool dégg nga imam wax kon yow ku góor ki li nga nekk du yoon ndax imaam nee na la man dama koy faral di wax ñeenti pilier say góor la war al watu wal kiswa wa nafaqa wa na benn bi góor balaa muy jël soxna na am aptitude physique pour téye soxna kooku mag dañ ko daan vérifier si dañ ko daan vérifier dañu lay woo ci ruq sa nijaayale lay woo wala sa mag ne la ndax dara dalu la c'est important mais dañ ko war def parce que ñàkk euh, ñàkk feeñal ayib ci marchandise bi ngay jaay bakkar la benn bi góor war na am boobu taxawaay beneen bi mooy li ñuy tuddee matériel bi soxna bi soxla soxna si soxla yére yi muy sol su feebaree faju góor lañ ko gàll donte ko jigéen am na salaire bu ëpp salaire am charia ko góor ki la ko sant beneen bi mooy dépense quotidienne ndekki añ reer su xiifee xewlu góor lañ ko sant ñeenteel bi mooy logement décent a sukk na góor lañ ko sant léegi ñeent ngoog su may faral di maye mariage damay naan bu fi fanaanee muy yow ku jigéen ki sa borom kër amal na la benn nuitée boo xamante ne moo la ko waroon a fayal ndax waratoo fanaan sa kër bàyyi waratu la dundal warat yow dafa transféré daanaka compétence yi ci yow donc yooyu noonu dañ ko war a wax góor mu xam ko jigéen itam ñu xamal ko ne ko góor du ku mu war a defal bras de fer parce que dafa bëri ay tendance yu jógee à l'extérieur bu ñu deful attention daf ñuy pousser ci xëccoo ci biir sëy te du suñu valeur du islam ñu jàngal ko mu nooy jàngal ko mu nangul nangu sëy ndax sëy jaamu yàlla ngi jaamu yàlla boo gis épreuve bi mooy jiitu récompense bi kon nag ñu bàyyi ko xel jàngal ko ne ko borom kër sang la du yàlla du yonent waaye nag sang la yonent bi alayhi salaam ne bu sujjoot daganoon nit defal ko moromam ni moom ma sant soxna mu sujjootal borom këram ñu jàngal ko ko soo defee ñaari message bi dugg ci ñoom bu ñëwee boo toog ëllëg daa daañu fàttaliku am na sax moom message yu ndaw yoo xam ne ci wàllu aadala la naan la yow ku góor ki boo bëggee jël soxna na nga sooraale ñetti jikko ci sa biir kër mooy ku la yaakaar lool boole ci yàpp la lool ndax jikko moo deme noonu ñëpp ree waaye message la euh, sooraaleel koo xamante ne dalay tooñ njëkk laa mer gën la yàgg ca mer ba ba yow mi mu tooñ nga di ko jégalu di ko jàngal ku góor ki sóoraaleel koo xamante ne loo ko jox ci alal du doy mënoo ko combler kon bul xaar mukk mu ne la defal nga ba ma doyal kon ñu koy jàngal góor ne ko ku bëgg a toog sa biir kër téye sa soxna foog nga sóoraale ñetti jikko yooyu su ko defee yooyu dañ ko war di wax nag soxna si ak borom kër bu ñu fa teewul nag à défaut ñu enregistré ko tegal leen ko wala saa ñu toogee rek ñu di ko seetaanaat mu leen di jàjjiwaat leen wan seen rôle ci biir se euh, dans ce cas obligatoirement il devra saisir le juge parce que euh, la loi te dit que mois après la la la célébration du mariage six mois après obligatoirement da ngeen war a dem ci euh, comment dirais-je officier d'état civil bi pour mu constater leen seen mariage. pour mu jox leen un acte six mois après. oui bu ñu toogee maanaam ba six mois la loi donne un délai de six mois. et c'est daal la leen jox waaw voilà et c'est de rigueur. déedéet bëgg nga leeral ko parce que am ñu si xamul loolu. Euh, c'est ça boo leen marié tey. Mhm. ñu may leen tey euh, dimanche. le vingt voilà dimanche vingt neuf novembre. oui vous avez six mois pour au moins aller chez le l'officier d'état mhm. au moins faire constater ce mariage là. Maintenant, au-delà de ce délai de six mois, obligatoirement, vous devez saisir le juge par une requête aux fins de déclaration tardive de mariage. Pour au moins juge bi may leen kayitu mariage may leen jugement conforme wane ni au moins mën ngeen mën ngeen a dem léegi bu leen mayee jugement boobu noonu dangeen koy jël ngeen dem nag ci officier d'état civil mu transcrire ko. Mhm. donc au-delà au-delà des six mois. obligatoirement maa la bëgg a laaj dafa mel ne euh, góor ñi léegi dañuy ragal Eh, peut-être dañoo peut-être dañoo xamul rek. dañu xamul peut-être dañoo xamul les euh, yi leen ci mën a fekk. waaw parce que mariage bu fekkee amul certificat de mariage ni sànq bu amul certificat de mariage ce mariage là bien vrai qu'il est valable mais ce mariage ne pas opposable à l'État cest à que tey munoo faire mënoo mënoo faire valoir jël ma ak mariage boobu naan État man marié wu naa parce que État kayit la xam. boo ñëwee ne État man damaa marié wu tey supposons ngay liggéeyee fenn obligatoirement dañ lay demander certificat de mariage. su fekkee surtout ci ci ci ci impôt sur le revenu bi les impôts yeeg yooyu noonu. Mhm. bu fekkee amoo certificat de mariage tey c' est sûr que yow impôt bi ngay fay mooy ëpp ki nga xam ni am certificat de mariage donc ñi nga xam ni tey ñi ngi liggéey. ils ont besoin même de ces certificats de mariage là au moins pour présenter ça pour que au moins impôts yi nii fay mën a wàññiku donc góor ñooñu peut-être danoo xamul rek. mais góor mais góor ñi xam ñëpp waaw moo ñëpp dañuy wuti certificat de mariage. c'est t il un mais c'est le code de la famille qui a qui a qui qui qui qui a consacré tout ça parce que parce que ñun suñu mariage pratiquement dañ ko tënk si benn document bu ñuy wax code de la famille moom mooy wax mariage lii la moo définir le mariage. Mhm. moo définir également euh, comment dire les conditions de fond et de formes du mariage. parce que mariage dafa am ay conditions de fond muy consentement yooyu am ay conditions de forme. donc yoo xam ne ni code de la famille moo ko établir code de la famille mooy document bi mooy charte bi mooy charte bi nga xam ne ni mariage moom la war a obéir divorce ak succession sax code de la famille lépp moom moo ko teg. tey nga marié wu ak sa jëkkër Afrique fii yàlla def mu tukki mu bëggoon la yóbbu amoo leen papier de mariage comment vous allez faire man loolu lay laaj seen avocat comment vous allez faire si vous n'avez pas. papier de mariage. man damay laaj seen avocat bi ma laaj ko ndax euh, soo amee papier jàkk bi ndax euh, jar na ngay dem euh, mairie wala daal. ñun jigéen ñi ba lan la ñuy dimbalee ëllëg daal pour ñu xam parce que ñun tamit xamuñu cause yi lan la te bëgg nañ xam lan la. waaw man li ma buggoon laaj avocat bi mooy tey nit koo xam ni dafa marié wu sous le régime de la marié wu sous le régime de la monogamie. maanaam benn jabar lu mun am mu bugg a tàggoog jabaram may ko baat tàggoon nañu donc au niveau religieux mais au niveau de de la mairie euh, ndaw si mooy traîner les pieds pour que ñu mun ko liquider au niveau de la justice loolu ban yan pexee la ko góor ki mën am waaw bu fekkee ni ko góor ki doyal na mais amaana xëy na ndaw si doyalagul waaw mais ku góor ki nan la mun def ba loolu sotti. première question bi. Euh, ci ku góor kii laaj euh, jabar ji nga xam ne ni daf koy yóbbu tribunal pour tas parce que dañu marié woon euh, ci ci sous le régime de la monogamie ah mais moom moo yóbbu ndaw see ko yóbbu tribunal pour ñu pour ñu pour ñu divorcer tribunal xam nga mën na yéex mën na gaaw mais tant que tribunal tasul sëy bi dañuy jàpp ni tasul parce que foog naa maître ku góor ki moo yóbbu ndaw si. waaw bu dee ku góor ki moo ko yóbbu. Mhm. tribunal day jël temps bi nga xam ni nii moom la war a jël pour tas sëy bi sa ne veut pas dire que ndaw si mi ngi yeexal rek que tribunal day day dafa daf ko war a tas mais tant que parce que ndaw si nga yóbbu tribunal tamit am na droit défendre boppam. mën na jël avocat avocat bi di ko défendre. Mhm. donc tant que dossier n'est pas clos ba juge bi vidé ko dañuy considérer ni que bi tasul ba léegi. te même bu tasee bu fekkee juge d'instance bi daf ko tas sëy bi bu defee appel appel bi day suspendre exécution jugement bi bi daf koy suspendre ba tey sëy bi day jàpp ñu tasul parce que appel day suspendre exécution de la décision paree defee pourvoi en cassation tamit l'article 36 de la loi organique sur la Cour suprême te dit que le pourvoi et le en matière d'État dafay suspendre l'exécution de la décision donc moom am même bu fekkee ni juge d'instance bi dafa tas sëy bi am na droit def appel bu defee appel dafay suspendre day mel ni affaire bi ba léegi tasul. d'accord bu defee pourvoi tamit day mel ni ba léegi affaire bi tasul. ñu dikkaat ci deuxième euh, question bi. Mm-hmm. Euh, kii nag moo ngi dem wax naan bu fekkee da nga sëy ak foog naa loolu la wax. Mm-hmm. bu fekkee da nga sama jëkk nekk immigré ma sëy moom léegi nag mu bëgg maa yóbbu. Mm-hmm. Europe par exemple. te fekk balaa muy dem amuñu woon certificat de mariage nee lu muy def. waaw kooku kooku mën na saisir parce que ndaw si nekk fii. waaw mën na dem tribunal. mën na dem tribunal yóbbu ña euh, photocopie ñaari témoin ñaari témoin yóbbu photocopie ñaari témoin certificat de non inscription bi nga xam ne nii moom la ko officier d'état di jox. waaw certificat de non inscription bi nga xam ni moom la ko officier d'état civil bi di jox ak euh, nu mu tuddati ak euh, moom carte d'identité bu ñu demee. au niveau de de, de, de du tribunal. Mhm. ñu joindre ñu ñu ñu defar une requête au fait de de de déclaration tardive de mariage. maintenant bu ñu demee ci audience bi juge bi obligatoirement dafay ordonner la citation du mari bi nga xam ne nekk fi daf koy envoyer lu ñuy wax citation mën na nekk citation à parquet mën na nekk citation à domicile mën na nekk citation boo xam ne nii da koy fekk foofu noonu ca ca ca ca bitim réew bi mu nekk. Euh, encore une fois bu jàkka ji attestation la lay defal du certificat mariage constaté attestation la jàkka attest ah? voilà jàkka ah? attestation non non non jàkka attestation la lay defal maintenant boo amee attestation jàkka jooju. obligatoirement attestation boobu ak ak say seen ñaari extrait ak seen photocopie carte d'identité quatre temps moom ngeen yóbbu obligatoirement officier d'état civil pour mu defal leen certificat de mariage constaté Passons, si vous le voulez bien, à notre rubrique questions. Pour cela, il suffit simplement de nous rejoindre en nous envoyant vos mails sur instant droit gmail.com. Sélectionnez le sujet qui vous intéresse. En plus de ça, vous pouvez, pour la question déjà sur le sujet, vous aurez la chance d'avoir une réponse à vos questions et obtenir la réponse en direct. Alors, euh, maître, pour une première question, hein, vous avez... Oui. <laughs> La question de Madame euh, Fantandiaï, depuis la France. Oui. Elle demande, elle dit qu'elle qu vit en France et son mari a épousé une deuxième femme au Sénégal alors qu'il avait opté pour euh, la monogamie. Oui. Bon, dans ce cas, euh, ce qu'elle peut faire, effectivement, elle peut attaquer ce mariage. Ah, elle peut en annu... oui, oui, elle peut, elle peut faire une procédure en annulation du mariage, du second mariage là, euh, qui a été contracté par son, par son époux. voilà parce que quand tu optes pour la monogamie tu n'as pas le droit de prendre une seconde. takkaat keneen dañu nag maître nag comme moom daa wéet Sénégal xam nga jaba jàng waaw waaw waaw waaw mais loolu la mais non waaye mooy monogamie bu mu mën mën nga takk mm. mais aussi moom buy attaqué mariage bi na ko wóor ni sëy bi am na parce que tamit sëy boo demee ci tribunal naan dafa takkaat jabar te mënoo indi kayit bu wane ni takkaat na jabar tamit lool tamit amul ah, euh, tribunal euh, ah preuve pour mu am pour mu am preuve buy wane ni waa ji takk na jabar waaw léegi bu fekkee ne waa ji takk na même ku jigéen gi amul preuve bi nag te waa ji takk na waaw mais boo xam nga demee ci moom la ñu boo demee ci yoon waaw obligatoirement di nga génnee kayit bu wane ni waaj takk na jabar muy certificat de mariage bi te yoon certificat de mariage la xam. dina ko génnee par force. ah bu fekkee ni amu ko bu fekkee ni ndaw si mënu koo yóbbu pour wane ni waaj takkaat na jabar. waaw yoon ci lan lay sukkandiku pour ne waaj takk na jabar. waaw d'accord maître kon lii la ñu deuxième question bi. <laughs> deuxième question bi euh, Bari depuis Pikine. nee na dafa remarier elle s'est remariée sans pour autant euh, disposer d'un certificat de divorce waaw bon dans ce cas aussi euh, man je pense que au de la loi elle ne devait pas se marier tant qu'elle n'a pas obtenu le certificat de divorce ah kon loolu moom nan nga ko wax ah waaw jàkkaarloo caméra bi nga wax ko parce que foog naa ne sëy yi bëri ñoo ngi koy takkaat te fekk ku jigéen ki amul certificat de divorce bëri na xam nga sëy yoon moo ko mën a tas waaw sëy bu dee sax l'islam da koy takk mais pour mu tas yoon moo koy tas te bu ko yoon tasul boo sëyaatee keneen ki am na droit tamit topp la devant le juge am na droit topp la ñu ci bari dañuy def sax ay procédure euh, ay citation directe pour bigamie et autres là parce que bu fekkee da nga sëyoon ak kenn kenn am certificat de mariage ngeen tas amagoo certificat de divorce dem sëyat keneen moom am na droit bu ko neexee yóbbu la ci yoon. La troisième question, Pape Demba Sagna. Depuis la France, après un an de mariage, est-ce qu'un couple qui s'est marié religieusement peut toujours obtenir un certificat de mariage devant l'État? Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont mariés. Mais ils n'ont pas quand même été chez le l'officier d'état civil dans les six mois pour obtenir voilà, un certificat de mariage. Voilà, donc dans ce cas, ils, mhm. peuvent quand même euh, bénéficier d'un jugement déclaratif de mariage. Ah, euh, merci, maître. Euh, on a beaucoup appris hein voilà dafa am solo émission bi alors euh, merci, merci maître euh, maître Alioune Badara Fall et merci imam euh, Moussa Fall d'avoir répondu à nos questions hein, et merci à vous de nous avoir suivis voilà n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver, retrouver cette émission et nos autres programmes, programmes sur YouTube. Et à bientôt sur un nouveau rendez-vous. Mais avant de dire même à bientôt, je tiens à dire euh, à mes invités de d'abord. <laughs> merci madame Sagna merci au revoir également. madame Sagna di jaajëfal sunu naataango bi ci éclairage yi ñu ngi bég bu baax yàlla bu mu doon suñu mujj daje yàlla na ñëpp jëruñu incha allah. et à bientôt sur un nouveau numéro un nouveau rendez-vous sur Instant Droit.